waaw waaw Dakarnet rek chers téléspectateurs vous pouvez varier les gens de programme que vous regardez waaw pas Didier divertissez en piochant parmi les séries sénégalaises reportages débats politiques culture théâtre sénégalais ba ci film africain yi sport découverte religion ba ci variété ma ne la mbokk téléspectateurs yi dama ne daal su ngeen bëggee digg digg daal Dakarnet rek ci information sodul amtation gaaw leen dugg te Euh, euh, jamono ji ñu ngi nekk ci période inondation yi population yi sont très affectés mu am euh, visite boo xam ne première dame defoon na ko ñëw fii am taxawaay bu mu ci am ban impact la présence boobu la visite boobu def ci population yi nga xam ne ils sont impactés waaw visite première dame bi duñu def lu dul sant ko remercier ko wax ko ne ko ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax population Pikine gërëm nañ ko te aussi duñ ne guléet yàgg na koo def ku fekkee euh, inondation 2012 yi département de Pikine ni ko inondation bi defoon euh, sinistré yu bari ñàkkoon ci matériel yu bari mu jël leen euh, yóbbu leen fële nga xamante ni moo nekkoon CICES 2012 la woon nekk ak ñoom téye leen téye bu rafet ba am ci ay turandoo yu bari donc kooku duñ ne guléet la ñëw dans le département de Pikine yàgg na ko di ko def yàgg na assister population bi te ci rôle am aussi la nekk parce que première dame la boo xamante nii dafa jege population bi parce que macha ji koy sénégalaise bi da koy dund euh, jikkoy africaine bi nekk nit koo xamante ni ku oyof nekk nit koo xamante ni si ku oyof ku bëgg réewam waaw ku bëgg réew bëgg jigéen ñi aussi bëgg xale yi donc Pikine yëpp sant nañ ko te gërëm nañ ko aussi te dañ koy ñaanal yàlla aussi yàlla na taxawaayam yàgg ba lim mën ren bu déwénee mu mën lu ko raw en tout cas daal gërëm nañ ko ci bu baax a baax waaw malgré ngërëm boobu nga xam ne jëmale nañ ko ci moom indi woon na coow fekk na fi ay population yoo xam ne ils étaient très frustrés maire ba takk ay brassard rouge euh, naka la mën a expliquer euh, accueil boobu noonu. waaw xam nga ñi nga xamante ni tey ñoo takkoon brassard rouge yooyu ay jeunes lañ yu nekk biir APR te dama jàpp ni ni jeunes yooyu nekkuñu. Euh, vrai vrai apériste ndax li tax ne nekkuñu vrai apériste mooy ku xam histoire politique gu xam histoire politique gu président Macky Sall même bu fekkente ni sax am nga lu la métti vraiment di nga am manière boo ko gérer boo xamante ni lu dul takk ay brassard rouge chaque jour dama koy condamné ci jeunesse bi surtout jeunesse su APR chaque jour ma ni leen bu ñu kontaanee dañuy wax bu ñu meree dañuy wax te baaxul ci politique en tant que jeune. te département de Pikine à chaque fois dañuy taxé ci yoo xamante ni rafetul te xale yooyu defoon loolu keroog du kenn ku ci am historique du kenn koo xamante ni am nga coono boo xamante ni dajal nga ko président Macky Sall du kenn ku ci fekkee woon 2012 du kenn ku ci fekkee woon M23 du kenn koo xamante ni si liggéeyal nga président Macky Sall loo xamante ni jar na tax tey nga ni da ngay takk brassard rouge ne fu ngay liggéeyee nañ la defal embauchement. ñaata doomu réew mi tey ñoo ne ci dëkk bi amuñu sax liggéey bay am embauchement donc pourquoi jeunesse su APR plus particulièrement le département de Pikine jeunesse bi ñu leen di dégg chaque jour ci ay coowal emploi mais ñun kese nekkuñu APR ñi fi nekk du ñoom kese ñuy politigal président Macky Sall donc war nañu mën a am beneen manière boo xamante ni moom la ñuy laajee président Macky Sall parce que nag suñu kilifa la te moom mooy suñu njiitu parti mais pas chaque fois ñu ni dañuy takk ay brassard rouge dañuy def grève de la faim dañuy xeex emploi non ñun ñun ñun ñun liñ dajal président Macky Sall laaj leen ba xam kenn ci ñooñu daj na ko dajuñu ko ci donc nañu jox nit ñi cër nañu respecter population bi man li ma ciy wax rek fàttali leen ko mooy bi ñu fi njëkkee créé Pikine va première dame mi nga may seetaan te du ma bàyyi ma fenn aussi bokk naa ci ñi nga xamante ni ba ñu moo wooloo këram ma dem dama ni ko gëstul ndaw ñi jeunesse bi président Macky Sall mën a waxtaan ak ñoom mu recevoir leen ma Marème Faye laaj ma numéro ku ñuy woo ñu jox ko numéro As Diallo mu woo As Diallo ni ko suba suba dinaa leen recevoir faf première dame jox leen président président mujj leen recevoir donc loolu ñun ci bëgg réew mi ak bëgg parti bi. ak bañ jeunesse su parti bi di def lu ñaaw moo tax fuñ kilifa buñ ci toogal dañ lay wax jafe-jafe bi nga xamante ni xëy am nañ ko ci sunu biir parti mais c'est pas parce que parti bi dafa am problème ko dañu koy manifester noo xamante ni rafetul Marème fay nekkul nekkul koo xamante ni ku ñu war a gàttandoo ay brassard rouge parce que Marème fay tooñu leen Marème fay waxu leen woon nañ ñëw politigal Macky Sall donc bu ñu amee ku ñu war a takkal brassard rouge nañu ko xool ci seen responsable yi nga xam ne ni dañu dëkk ak ñoom ci seeni commune te amaluñ leen njariñ ci loolu sax il paraît que wala bokk li ñuy ñaxtu mooy yorin bi nga xam ne Abdoulaye timboo yor na ko euh, Pikine donc loolu aussi nekk na loo xam ne peut-être lu légitime la ñu daal di koy ñaxtu waaw xam nga waxuma la sax Ablaye timboo mais yàlla sunu boroom mi ñu sàkk sax deful jaamam ñëpp am yàlla sunu borom mi ñu sàkk deful ñëpp am ñii dañu am ñii amuñu donc Ablaye Timbo daanu dajul suuf mënta defal ñëpp li mu am as muy mairie bi jël na ci ñim ci mën a jël relation yi mu am mi ngi koy jàppalee jeunesse bi ñenn ñi. mais pourquoi lépp ñu war koo mën a focaliser wu ne ni Ablaye Timbo daf ñu war a utal liggéey est que ñun bi ñuy ànd ak président Macky Sall sunu lépp dañ ko tegoon ci ne nañu jox liggéey non dañu ànd ak moom engagement boo xamante ni si am na tàmbali mais amul fu muy yem tey ci ñun ñii di xeex ñëpp nee naa la doo ci gis kenn koo xamante ni xeexaloon nga président Macky Sall avant 2012 y en a pas donc li laay war a solu ci li ma leen di wax mooy jeune mën nga xeex. mën nga kaas li nga bëgg mën nga wax li nga xamante ni moo la metti mais avec la manière jox nit ñi cër respecté nit ñi parce que nag mënuñu tëb responsable yi fi nekk donte ni am na ci ñoo xamante ni seen njariñ war nañ koo xoolaat mais nañu respecté président Macky Sall xam ni aussi tamit à chaque fois waruñu di dégg APR dans le département de Pikine ci coowal emploi donc bu ñu koy xeex aussi. vraiment en toute sincérité war nañu mën a respecter nit ñi ba am na manière boo xamante moom la ñu war a xeexee emploi parce que dëkk bi tey ñëpp ñëpp tey bëgg nañ liggéey te du ñëpp ñoo ko am donc nañu respecter peuple sénégalais bi nga xamante ni tey ñoo joxoon président Macky Sall réew mi te gàcce la sax ci ñun ñu naan ay ndawu APR ñu ngay takk ay brassard rouge di xeex ngir am emploi donc loolu gàcce la ci ñun. alors ci visitu euh, première dame bëri na ay critiques yoo xam ne daf nañ ko euh, à son encontre. Euh, visite bi bëri na également luñ ko ci euh, ŋàññ euh, am ñu ko ci attaqué sax publiquement euh, ban taxawaay yow ak ban position nga ci jël. waaw loolu moom taxawaay bi ma ci am rek mooy la sëñ Mountakha waxoon boo baaxee dangay ngay dem boo bonee da ngay dem donc nañu jéem a baax ndax li tax may wax loolu mooy réew mi dem nañu ba def lu baax dafa mel ni doonatu fi doonatu fi cër. nit da daan def lu baax ñu encouragé ko mais léegi réew mi dafa mel ni ñii di def lu bon sax la ñuy gën a encouragé dañuy gën a defal buzz la ñuy gën a jàppale la ñuy gën a soutenir sax ci côté communication booy xool mais ñi nga xamante ne tey dañuy def lu baax booy xool ñoom la ñuy gën a ŋàññ ñoom la ñuy gën a critiqué au nom de quoi dama ciy interpellé nag ki nga xamante ni mooy Aïssatou Diop Fall mi nga xamante ni toog na keroog ci benn plateau di wax ne ni kii di Marème Faye Sall dafay def ngistal ma koy wax ni ko Aïssatou Diop Fall télé yi yéen la dab ñoom télé bi da leen a dab bës bi attanuñ ko dañuy dem ci ay euh, ñoo xamante ne tey dañ leen di ñawal yére jox leen ko te duñ ci fay dañuy dem salon ñu coiffé duñ ci fay bës boobu ak coow loolu ñoom ñi nga xamante ne tey dañuy génn ci télé di animé ay émission attanuñu bës boobu donc bës boobu moo leen di poussé ba tax na bu ñuy wax duñu ko sax tey def lu baax damaa def ne ni bu ko Marème fay Sall defee moom en tant que jigéen en tant que femme devoir la cër la mu rafetlu geste boobu pour pourtant Marème Faye Sall yàggul dara lu ne waxal nañ ko ko ci réew mi ay dafa liiw ak dafa laaw ak mi ngi toog këram ak dañ koy faj ak mais attends mu toog loolu lépp toog këram génn ñëw def action di def lu baax ci réew mi ñu ni dafay ngisal damay wax euh, Aïssatou Diop Fall ne ko boo xamoon Marème fay Sall démb dinga ko jox cër ndax dara dabb ko ci réew mi dara dara dara dabb ko xam nga réew mi tey bu ñu dénkee dara sa jëkkër ngay jigéen peut-être ci la la sax nit ñi di xam mais mareem ku ko xam démb xam ko tey xam ne dara dabb ko ci réew mi non dara dabb ko day nit koo xamante ni dafa juddu fekk lépp kon buy waxati ne ni Marème fay Sall day def ngistal na dem laajte Marème fay Sall laajte ay waajuram yàgg a baax gi ñuy def ci réew mi Pikine gii miis nañu jëf ju baaxuma leen Marème ay satu Diop Fall nag war naa mën a xoolaat taxawaayam ci réew mi ndax moom waxam saful xorom waxam saful suukar bu waxee kenn du ko wax Aïssatou Diop Fall day nit koo xamante ni daanaka ci ay waxam sax barki Serigne Bamba ñi muy toogal ci émission bi sax mooy tax nit ñi di ko seetaan mais bu doonoon moom ak moom dong du lenn loo xamante ni moom taxawaayam réew mi dañ ko ciy xool ba naw ko ci kon na respecté ñi nga xamante ni tey première dame mi ngi leen di defal lu baax te séntuwu ci sax ku ànd ak borom këram wala ku àndut ak borom këram kii def lu baax nag da koy def te yàlla rek a tax te it genre Aïssatou Diop Fall gi ñoo tax réew mi kenn bëggu fee def lu baax ndax da koy bëgg a def pour au moins nit ñi encouragé la mais dañ lay gën a waxal wax joo xamante ne ba muy da nga fay jaaree découragé kon moom na jéem a mel ni Marème fay Sall jéem koo mel sax du yomb ci moom ndax mënu ko mënu ko kon Aïssatou Diop Fall encore une bala ngay waxati la ngay wax dee ko seetaan Marème Faye yàgg naa def lu baax ci réew mi te booba yow xamoo ko kon koo xamul nag mënoo koo waxal te it bu deful woon lu baax lii muy def ci réew mi te it dañ koy waxal rek lii mu def nii ci lu baax bu ko deful woon toog këram ñu ni moom day jàppalewul jëkkëram nangam ak nangam kon bu defee lu baax nañ ko encouragé moo gën wax diñ koy sànni xeer Marème jigéen ju baax la wallahi azim waaw waaw Dakarnet rek chers téléspectateurs vous pouvez varier les genres de programme que vous regardez waaw pas DJ divertissez en piochant parmi les séries sénégalaises reportages débats politiques culture théâtre sénégalais ba ci film africain yi sport découvert religion ba ci variété ma ne la mbokk téléspectateurs yi dama ne daal su ngeen bëggee digg digg daal Dakarnet rek ci information sodul am tation gaaw leen dugg abonné